asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di ziar di leen jàmm te di ko sàkku ci yéen tey nag ñu ngi jeudi 28 octobre 2021 la may def mooy bàyyi leen ngeen dem déglu te seetaan yëglikaay li ñoon di lu dikkaat ak yéen si plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 28 octobre 2021 dañuy wax ci yëglikaay sunu lamb lan kay doore. yëglikaay bi tey xëtamu njëkk moom lam ca xëy gën ko caa fësal bokk na ka nga xam ne ni moo di rëg-rëg rëg-rëg nag moom ma génnoon moo génnaat tey tey nag bi mu génnee moom lenn la xëy di wax wala na daal la xëy wax ko ba ñëpp dégg ko ka nga xam ne daal moom moo di manis ma ngeen xam ne fan yi moom gañe woon Bombardier ca MMA ba daal rëg-rëg sampal na ko ndën reg ne na daal boo bëggee dégg dëgg daal moom nan ma ko jox rek ma war ma warax ko loolu daal mooy waxi rëg-rëg maanaam ki gën a fort ci àddina bi daal yëglikaay bi ne na moom la rëg-rëg sampal dën daal di koy dëkk mu mel ni ki daal rëg-rëg fi mu nekk nii daal maanaam ay waxam du waxi lenn lu dul daal maanaam nan ko jox ka nga xam ne moom moo di maris mu jëflante ak moom jëflante yoo xam ne bu ca jógee moom maris dana xàmmee biddiw ak la nga xam ne nii moom moo di ab jant yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dalal Omar Kane rëg-rëg moom sunu làmb mu cay wax moom ma nga xam ne nag moom moo di maris wan nañu ko tamit ci aw foto ca xatu ba moom nga yëkkati ay loxoom daal di wane boppam moom tamit keneen koo xam ne tamit am na ku mu dëkk muy ka nga xam ne moo di Rocky Balboa ma ngeen xam ne ca MMA ba moom la bombar Bombardier jëflanteeloon jëflante bu méttee méttee méttee ba gagné ko Rocky nag nee na Bombardier ginnaaw am na defet nanu ma ko jox léegi man itam ma fayu maanaam daal ma jël sama ramas loolu moo di waxi Rocky Balboa yemu ca tamit moom jàpp na ne tamit MMA bi saltel gan koy saltel nan ko bàyyi maanaam daal jàpp na la ñuy wax ak la ca nekk du benn daa jàpp ne sax kay na ñu koy def d'accord mën na leen a comprendre que ni lambi senegal la ñu bëgg a défendre waaye tëriwul tamit MMA ba nan ko bàyyi mu dox doxu boppam moom Rocky loolu la xëy tey di ko wax kenn koo xam ne ni moom la mu doxal maanaam ba tëgg ko mooy rëg-rëg ak guy gi muy Maawo Cissé ma ngeen xam mu nekk fa nga xam ne moo di groupe Futurs Médias moom Maawo tamit am na leneen loo xam ne daal bëgg na ko ba xëy tey wax ko muy combat boo xam ne daal nee na bu ñaari mbër yi d'accord mu tëgg ko te itam nee na bëgg naa ko muy diggante Diène Kaïré doomi Boy Kaïré Yékini Senior ma ngeen xam mu dëkk fa nga xam ne moo di Grand Médine boobu combat daal moom la Maawo Cissé maanaam bëgg beneen combat boo xam ne nii moom ka ko bëggoon am na ko muy Sidi Jaxate mu war a ci diggante Ousmane Gandi Gall ak ka nga xam ne moo di Alaaji Gaynde Kara Jeng nag di ab chronique ab di ab chroniqueur maanaam kuy jàngat ci wàllum lamb nekk ca région de Thiès daal moo xëy ñu laaj ko ca combat ba nee na combat moom am na favori te favori ba génnul kenn ku dul nga xam ne moom moo di Ousmane Gandi Gall loolu mooy axi ka nga xam ne moom moo di Kara Jeng kenn koo xam ne ni moom signé na ba pare war a muy mbay guy digganteem ak Zarko te waa rent DKR jaar fa mbay nag moom la mu wax Zarko daal lenn la ci yëglikaay bi nee na ko li am ba des bés bu arbitre soufflé génn suñu diggante su ma la jàppee yëkkati la ba ca kaw rek ba ngay séen asamaan sa ma fëgg la ci suuf lii dong laa la fas yéene def kenn koo xam ne moom ca Italie la nekk yóbbante ab yóbbanteem muy ka nga xam ne moom moo di Farba ma ngeen xam mu nekk daal pikin mbooloo wala mu nekkoon fa yëglikaay bi ne na dëpp ca Italie ga mu nekk daal fa la waxe ay waxam ka muy waxal nag du kenn ku dul fils de Balla ma ngeen xam ne fan yi nu génn moo daan général Malika daal la Farba ne pare naa ngir jëflante ak moom maanaam daal buñ ma ko joxee ma wane ko Farba daal loolu la xëy tey di ko wax len loo xam ne ni moom nar naa tàng jër tey taal faw ñu wanente muy diggante Ada Fass ak Tapha Mbeur ma mel ni nag ñoom ñaar sànnante trak ye commencé na ci biir yëglikaay Tapha Mbeur nag moom démb def na nga xam ne moo de open press sam ginnaaw bër ki demb ba ko Ada Fass defee Tapha Mbeur itam wax na ca la nga xam ne nii daal ca la nekk fi mu nekk nii moo xam voyage yam doon def ak mystique maanaam daal daa mel ni fi mu nekk nii moom pare daal la def jëf jëflante dong moo ci des te ba tey bu nu demee ci Equivox fekk ko fa moom Tapha Mbeur nee sama diggante ak daal ku mën sa morom yéy daal la ko waxe du sama ay wax waxi Tapha Mbeur la mu mel ni que nag Ada Fass tamit ci biir yëglikaay bi di sunu lam tontu na ko fa nee na ko li am ba des daal soo bëggee dégg dëg daal yow Ada Fass mi nga xam ne boog yaay Tapha Mbeur Ada Fass nee na ko daal jàppal ne wax fas moom samay bête noire la ñu mas a doon kon boo bëggee dégg dëg daal wala boog waa Parcelles Assainies maanaam daal maay seen Ada Fass nag jëmale ko fa nga xam ne moo di ca Tapha Mbeur ak waa parcelle nee na ko daal bu dee côté parcelle moom soo bëggee dégg-dëgg man Ada Fass maa seen bête noire fu ma leen fek dama leen fay jële te itam jàppal ne dimanche moom fu ma la fekk danaa la fa jëlee mu mel ne nag kon soo bëggee dégg-dëgg daal diggante mala boog dimanche ji nu jëm moom ndakaaru ba Thiès nar naa yëngutu Fallou Ndiaye moo yëngal Dakar Sidi Diakhaté yëngal fa nga xam ne moo di Thiès waaye nag am na loo xam ne faw mu yëngu ba ñëpp yëg ko muy tey jii jàppal di la 28 octobre ka nga xam ne mooy Djiga Diop Djiga Fane Mbaye ak Loum moom nag moo am tey wala boog tax mooy bésu anniversaire am kon Djiga happy birthday to yi Djiga borom reefan Djiga borom xol bu nice bi dundal lu baree baree bare ba say may di baawaan borom vingt 28 octobre du mën a ñàkk jërë ngeen jëf kon dégg ngeen tey yëglikaay yi sunu làmb Equivox TV liñ ñu andil waaye nag balaa may sori ku ne xam na ne tey le 28 octobre dafa am ko ah ku nga xam ne ko spécial la ci man wala wala ñoo xam ne ñu spécial lañ si Babacar ah, bokk na si Jiga Jiga Diop tey mooy bésu anniversaire am ma koy wax happy birthday to you dundal lu bari ba say may di baawaan barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Jiga doomu Refan doomu Bawal Jiga soppee Mbayang Luum doomu Mbayang Luum du bokk ci fi nga xam ne moom mooy fan sa club 100 pour 100 Babacar aw ma sa fa yal na la yàlla fay waaye daal yal na la yàlla defal fan bu gudd defal la sa du daaray ni barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiga borom le 28 octobre du mën a ñàkk happy birthday to you jiga Diop Fane Mbayang Lo mënul ñàkk buñ fa jógee nag damay def rek comme ni ngeen ko xamee tout droit jëm ci li nga xam ne moo di sunu làmb sunu làmb nag tey gis ngeen xëtam mu njëkk la ca gën a xëy tey gën caa fës gis ngeen ko noonu rëg-rëg mi ngeen xam doomu caaro yi ak kan Maris ma ngeen xam di doomu Pologne mu mel ni ki nag rëg-rëg moom ginnaaw la nga xam ne dal na Bombardier ci di digganteem ak Maris rëg-rëg loolu xari na ko lool ba tax mu ne daal fi mu nekk nii ah day jël revanche maanaam daal dafa bëgg a dajeeg waa ji maanaam ne na te buñ dajee ne maanaam da koy sax coob comme ni ngeen ko mën nga xam ni ñu ko mën a wax ngeen jégal ma ci kàddu gi yëglikaay bi nag ne na ah lom l'homme le plus fort au monde moom la rëg-rëg sampal ndan fi mu nekk nii waaw muy maris mi ngeen xam waaw maris bi ngeen xam daal te bëri ki dem mu def lu doy waar fa lee ca Pologne ah rëg-rëg daal nee na pare na ngir moom loolu nag yaakaar naa ne rëg-rëg fi mu nekk nii xaale la macha allah mu ngi entraîné te itam mu ngi ci MMA bi di ci wane boppam yaa ngi dégg kon defe naan tey tamit ah, ay bëtam war na koo teg fu sore sore sore sore waaye xam naa daal lamay wax daal mooy lu mu ci mën a doon rek na liggéey bëgg na yokku rek parce tamit euh, bon combat moom saa yoo ko bëggee wala nga bëgg a jëm si benn combat wala ngay xalaat dajeeg benn adversaire fexeel ba xam adversaire bi jàngat ko ci côté yépp ci plan yépp pour pour que ëllëg su ngeen daje mu gën a mën a yomb ci yow loolu lañ koy wax di ko ñaanal tamit ëllëg bis bu daje amee yàlla nanga ko gañe yow rëg-rëg yàgg nga xam ne nii moom moo di maris ca côté MMA ba loolu foofu la ñuy wax waaw bu ba tey buñ ca jógee euh, ka nga xam ne ba tey gis ngeen ko ci xët njëkk ba tey rek Rocky Balboa ku ne xam ne ne Bombardier dajoon na ak moom Euh, gañe ko gañe bu métte métte métte moom mooma nag daa mel ni tey ginnaaw boobu Bombardier amee defet daal moom ne na léegi na ko moom di jox revanche am moom daal waaw ah nag c'est normal képp koo xam ne daje ngeen mu gañe la am nga droit nga doxaat bis boo sentiré ne pare nga ngir jàkkaarloowaat ak moom am nga droit laaj ko revanche ki nga xam ne ni nag moom moo di Rocky Balboa actuellement loolu la def ne na daal Bombardier la bëgg mu jox ko revanche am ñu daje ñoom ñaar revanche nag yàgg na ci sport waaw kon daal Bombardier fi mu nekk nii moom mooy xool waaye Bombardier est-ce que diggante xam naa loolu foofu mu bëri ak Balla Gaye de ba pare rek waaw parce que xam naa ne moom ci diggante li des fi ak combat moom yaakaaratul fi signé benn combat di ko jongante xanaa kay su bëreeg Balla ba pare après ñu doog a loolu ndax day joxe revanche wala day jëli jiwaat revanche parce que mu ngay wax waxi revanche ak nga xam ne mooy Maris donte Gaston Mbengue suñu papa moom nee na ko loolu moom duñ ko seetaan waaw buñ fa jógee ñu continuer ba tey maaw maa ngi lay bégee bu baax nga xam ne moom moo jiite la nga xam ne ni moom mooy benn structure bu ñu teg ci groupe Futurs Médias muy tëgg ay làmb mu taxawal combat guy gi ak nga xam ne moom moo di rëg-rëg moomu nag tey bi mu xëyee li mu xëy wax dana daal am na lu mu bëgg combat boo xam ne bëgg na ko ñor na ko loolu te bu ñaari mbir yi d'accord mu tëgg ko moo Yékini Senior ak nga xam ne ni moom moo di euh, Diène Kaïré doomu Boy Kaïré mi nga xam ne ni bërki dem daan na Modou Anta ah loolu nag fi mu nekk nii kon ñaari mbër yi bal bi ci seen camp la ne maawo moom ne na pare na ak groupe Futurs Médias mu ngi tëgg boobu combat ah bu fekkente ne nag déggoo am na war na mën a nekk waaye dafay fekk que ni nag euh, est-ce que taxawal combat bi dina yomb waaw parce que Yékini Junior moom ci Modou Anta la mujjee toog na lu yàgg bëriwut wala sax ci ci Tapha Tine di moins ak defet Modou euh, kii nga xam ne mooy jéen mujj ci Modou Anta yaa ngi dégg làmb nag du maas dabante la te mayante sens da ciy am Yékini mooy mooy xool ndax moom day bëre ak ki nga xam ne moo di Diène Kairé wala lu muy def waaye loo ci mën a dégg daal maawa moom bëgg na te itam nag ah euh, comme kii xale la mu ngi ñëw Yékini Senior bu ko neexee am na droit taalal ko loxo bu ko neexee tamit wóori leneen ndax ñu ngi wax digganteem ak Sa moom Yékini Senior te foofu tamit làmb la waaye tamit promoteur bi tamit bëgg na lii ba tey beneen combat boo xam ne taxaw na ñu war koo bëri fa nga xam ne moo di ca Thiès dimanche Alaaji Gaynde ak ki nga xam ne moo di Ousmane Gandigal suñu papa Sidi Diakhaté tëgg ko muy lu nar a neex ki nga xam ne nag moom mooy Kara Dieng di ab chroniqueur nekk ca région de Thiès nee na daal Ousmane Gandigal bu favori amee gis ngeen ko noonu nee na moom mooy favori bi waaw Ousmane Gandigal daal la jàpp ne mooy favori effectivement loolu mooy li am ndax Aladji Gaynde moo gën a féete xale te boo xoolee ci côté expérience Ousmane Gandigal moo ëpp expérience moo jëkk ci làmb ci li ma yaakaar te itam loolu boo ko dajalee nag war na ko may mu nekk favori mais favori ci ay kayit lay nekk ak yu mel noonu waaye nag sur le terrain bu ngeen wàcc ci terrain bi réalité terrain leneen la ndax chaque jour nga gis ci benn jongante li ñuy tudd outsider ñëw gagné favori bataay yi waaye daal xam naa kon làmb ju neex dina am dimanche incha allah rabi ca Thiès bu nu continuer ba tey keneen koo xam ne signé ba pare muy mbay guy gi digganteem ak Zarko warante Dakar tëgg ko gis ngeen ko noonu moom mbay guy gi nag ah nee na daal digganteem ak Zarko nee na da bu ko jàppee da ko yëkkati yëkkati door ci suuf mbay nag loolu la wax waaye ndax yëkkati Zarko dóor ci suuf dina na yomb fooguma ko xam naa daal Jimbo yow ak Alec ñoom Pape saar ak gaa yooyu ah, loo ci mën a dégg tëgg ngeen combat bu neex combat la boo xam ne ñaari mbër yi li ma xam mooy kenn du ci war na baat dañuy xel di waxante ba ba arbitre di soufflé mbay day wax Zarko day wax te loolu bokk na ci commu xam naa daal combat boobu combat bu ko communication du ma ko gis diggante Zarko ak mbay guy gi bu ma continuer ba tey Farba bu Pikine mbooloo depuis Italie la nekk moom fils de balle lay lay dëkk ne na daal nañ ko jox fils ndax loolu dina yomb est-ce que fii kon jolof gi ci joor gi dem ci géej géej di nii xalaat naa foofu gën a kii de pour nga jot ci Fils de Balla waaye Fils de Balla de fi mu nekk nii moom ah def na dimanche lu doy doy waar de waaw lu doy waar la def dimanche passé de waaw bu nu continuer ba tey ci biir yëglekaay bi gis ngeen Ada Fass ak Tapha Mbeur ñoom ñaar nag it dimanche arène nationale ak Ndiaye production mel ni jongante bu nar tara ngi noonu xale ay xale ñoo daje ñoom la Fallou Ndiaye boole ay xale dooni kii mag doone ki yëpp doole lu dul dañ ne rénkum daje wala ñu ñëw ba summeeku nga xool leen seen ay physique waaye loo ci mën a dégg daal xam naa ne boo demee bërki dem Fass démb nga dem parcelle di nga xam ne ñaari xale yi ku ci ne pare ka Ada Fass nag nee na moom mooy bête noir waa Parcelles Assainies moom loolu la wax ah bête noire nag lu doyee doy waar la kon sa yàgg naa dajeek ñoom di leen gañe waaye daal kon nañu xaar dimanche fa nga xam ne mooy ci arène nationale lamb ju méttee méttee méttee métti waaye di leen wax ne nag bu leen ko fàtte ngoon incha allah rabbi 20 heures rek kalu leen te xaar ñu direct di ngeen ko am fii spécial lay yoon édition spéciale ci ban combat la ñuy waxtaan ci combat Ada Fass ak Tapha Mbeur ak staffu Ndiaye production bokk na ci Mor bu Parcelles bokk na ci Fallou El Capo waaye tey tamit ak nga xam ne ni moom moo di góorandoo yi loolu nag bi ñu choisir def émission bi ñoom waa njaay production ñoom ñoo ne dañu bëgg amateur bokku bokk ci te ki ñu gis mooy góorandoo yi góor nag na fi semaine passée kon tey mooy ñëwaat ànd ak ñaar ñaar ñooñu ñetti invité yooyu ngoon Equivox TV di leen wax ne rek comme ni ngeen ko xamee image yi day leer te itam làmb lu original lañ leen di jox du man a ñàkk loolu mooy Equivox TV di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di nuyu ñëpp di wax ka ni 100 pour cent Babacar sama soppe yi yàlla na seen jàmm yàgg fan si club Babacar ak Equivox tamit aw ma seen fay yéen ñëpp tamit maa ngi leen di remercier ñoom Adama Ndiaye Italie ñoom ñëpp ñoom Awa Diop Touba soxna Asi Diagne depuis noak sot tamit maa ngi koy bégee su ma soppee maa ngi koy bégee bu baax a baax a a baax a baax waaw di nuyu Mor Ndiaye États-Unis d'Amérique ak ñi nga xam tamit ñoo may solal du ma mën a fàtte di leen jaare Rimka Couture tubaa Sandaga Mbay Ndiir Ndiireen Couture fële nga xam ne moom mooy ci rëbës ak tamit ki jaar fii tey muy Aliou Sall depuis marché Thiaroye Tali sëñ Babacar si Aliou bu yankaaw yàlla na sa jàmm yàgg waa Petersen tamit di leen nuyu rawatina Jib Seen di wax nag anniversaire u Jib Seen nañ ko waajal la 5 novembre la Jib Pogba borom Petersen borom ak yaay kon gars yi ba suba incha allahu rabbi